maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant bu baax parce que lii ku ko am danga war a sant nga am Serigne Cheikh ndigal déplacé wu ñëw ba sa kër wax ak yow saafonte ak yow saafonte ak say mbokk saafonte ak say xarit loolu defe naa lu rëy la du ma ne guleet waaye xam naa ne bariwul lu muy am moo tax ñuy sant bu baax. di sant tamit si li nga xam ne def na ko fi ñaan yi nga xam ne ñaan na ko fi te gis ngeen nu mu ñaanee ak xolam nu mu ñaanee ak dogu parce que bu mu waxee dafa ne dama dogu donc sëriñ bu toll nii bu dogoo mun nañ rafet njort te ñaan na dogu na ñaanal ñanu ñaanal ñu suñu xarit ñaanal ñu suñu suñu njaboot ñaanal na tamit Sénégal ñaanal président Macky Sall bi nga xam ne moo jiite réew mi ñaan na tamit ci li nga xam duggu ci na ci dëkk bi ñaan na yalla def ci jamm yalla def ci ndox mu sedd donc lolu moy li nga xam mom la fi def ñu ci sante bu baax di ko bu baax euh, mosu ñoo ñak fit parce que lolu xama ku ñu xam-xam ne ñoo ñak fit ñun lu ñuy def rek dañ ko gëm mais nak bu ku toll ni ñew ci yow ñaanal la ne la demal yow di nga gëna am ci lolu lu wër la duñ ko duñ ko bañ duñ ko dak parce que mo am donc toll ni bu la ñaanalee dogu ne la demal di nga dem loolu mom lu leer kaddu bi may wax mom bima mësa wax xam nga il y a 2 semaines defna ay don ci région bi yo xamné pour fièvre bi la tek ko loxo gouverneur bima koy def amna lo xamné waxon nañ ko moy Sénégal ñu top li nga xamné mom lañ leen sant ñu top li nga xamné mom la mesure yi nga xamné ñoñu ño xarañ ci lolu lolu lañ wax moy ñepp moytu té baña paniquer parce que dëkk bu panique amé rek baxul bu ñu paniquer mais nañu respecter li nga xamné aussi moy mesure d'hygiène ak mesure de sécurité nga xamné jox nañ ko lolu moy suñu cadeau toujours te bu sëriñ bi ñëwé tout légui tamit dégg ngeen ñu koy wax pour mu ñaanal Sénégal si loolu te ñaanal na si Sénégal keneen ku mel ni moom def na ko kon am nañ mun nañ am yaakaar ne waruñu paniquer Sénégal am nañu loo xam ne nañ ak Europe peut-être dañu am amuñu ko donc loolu il faut ñu xam ko il faut ñu xam lu ñu xam lu ñu am xam lu ñu doon suñ ko defee rek defe naa dinañ am dal mais nañ respecté li nga xam ne aussi ñi xarañ si loolu ñu ñu koy wax pour ñu def ala wawi mujatane wawi noon wango anda anda xa toxel fadal ala felanga roog ala felanga roog ala xano miñ no mat de basir ngom ala kene daal ala dogwanina katan roog ana doole sin ismaila ato o miñ no mat de kiñaan fosi ku bugona amin آمين آمين يا ربنا آمين يا ربنا آمين يا ربنا آمين يا ربنا آمين يا ربنا